kadi kadi Caetano Sénégal, représentant officiel des marques automobiles Renault, Hyundai, Ford, Isuzu, Bike, Jetour et Mahindra. Chef Aïda pour wadjal gu ay thermos ay 2HP Grand Bazar dal du hasard MK Wellness and Beauty, votre nouveau concept store. Parfumerie, maquillage, soins. Venez retrouver tous vos produits de beauté et de bien-être tout près de chez vous. Weekend international d'évangélisation des hommes avec la communauté Jeune Espérance. Hommes de tout horizon, rendez-vous les 16 et 17 mars à partir de 15h au Bois des Manguiers de Moussa. Teranga. At Ponche la fekk baax seetaanuñ seen program ak boisson Ponche yi di teral gan yi ak di seetal xol yi. ak Ponche rek Teranga, fii la fekk baax. royal, Royale buuru ndox Sen Gold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 Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Yetoudi à la boutique. Iba Couture. M60. Divine Lingerie. Ruby, l'horlogerie sénégalaise. Gilly Fashion. Ara. Falcon Institute. By Soja Business. Najle jabo damr chulla. Takumu ko tey takkuma ko ya yow fuy ko ya fuy. yow yow nit nga yow. bu leen ko mariage forcé waxna deug dëgg. ci Yo, yow ñu war nañoo la seet ba xam no lu nekk ci yow. ay ma nak bu leen ko mariage forcé. mariage doy na la wax. eh bu len no fonto la la wax dom duma ma dima di fi ben kaddo fi am ibnu jam samedi sunne xal sun borom na la may bambi wa ila ma xolal la doxal la takal la eh su boba yow nga dem dekk ba te duma ci jaaraata waaw moo jàmm mun ba da xew man dina baabaaru waaye yow sadiq à mom papa moom mom fa mu nekkoon ba tey ultimatum mom une semaine dong la ci xam eh sampa ba ngay waxal nak yow ba ci nga modéré sa langage yow lo ma may nga na modéré sa langage hmm. yow ya dimbali ma man ish wayo ibnu jam yow ya loy ban ci bambi mi fuy elle est belle elle est charmante xana ta pas vu ses ailes pas mos mosuma ko waye ko gis nen nen nen eh, to eh, eh, eh da nga fiir na nga kan, no bandi la ya? ken la no da koo dab ba tey bul yollee ko yow mii xalil xalil da daa mel moo noppaat ba tey. yow kañ ngay tëj. bu robinet tëjee ma tëj. lii sa jàmm la. ak salaam. Nabou may ma ñu tëdd. la ne la. eh jóge ñu tëdd. eh may ma tuuti. Bambi yow. du na da nga bëgg jël sama turu turandoo bi sàcc ko tuddé ko sa yaay xolal xam nga luma lay yëgal man na gey duma awa seex duma leila, sori na doon fa que ça soit clair nak fa laa yem ak yow gis nga sa yaay je ca balsàkk ñaan la soxla waye du ay turandoo capiche sa bët yi di ma saf yu pison lu ma la mën a rajut ci man yow eh, Ibnu li ma Khalil suba da nga am rendez-vous boy def. non pourquoi. dama bëggoon nga yobul ma Aïssa aéroport da nga yobale xalé yeb comme ni ma ko defoon ba ma yóbbu xale am na nga dëggu. sadi nak waane nga kan, nag yoon na nga nungu ngay ak yoonu Paris hein xana yoon du yoon rek. yoon hmm, yoon la yo ya, Paris la France Mom ngay tekkale ak nanga nungu ah fo nga am ne fer boy yor boy yegg muy wer ah ay tànk yu métti ay ndigg yu ruux noonu yooyu fii la xew de. Hmm. amul benn problème incha allah naa leen yóbbu. <laughs> man naa àdduna moom du du ko mës a miis man. lu sama ji am fi woon ay temps boo ko xee pour doom ji jàngi Paris lu la doon wax di siisu tamit bëgg nga yóbbu ko Paris xam nga aéroport. Mbacke del fàtte. del fàtte grave. fàtte man kat man nakh daf maa jaaxal kan Sadikh yow am nga melokan de gars merci ci xaar bi Jere ngeen jëf yow kay nga toog wax ñu li ñuy doye. dañuy teddi. dañu am ay sonn te dañ ñi xaar yaa ngi dégg te dañu am droit ci ñun droit ban genre droit la mbek bekk yëf xamoo droit lan yow droit de la nuit te loolu yow mëno ko xam waxa sa soxla ñun dañuy dem teddi. Bakir. Le simple là, tellement simple et juste ngeen na ngeen comprendre rek mu jàll. sama jëkkër franchement Bambi li un harcèlement à domicile ne sais pas. Je ko dama pas. Je damay ñibbi rek euh, Khalil ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne ko pas.

cette femme la yow kii moo waroon bañ gis nga kii li mu def tay baas tiim taat teg ci nga am looy siis wax ñu li ñu doy ma damay dem tëddi baax na. doy samay frère ngeen solidarité laay woote Bambi du ko takk te duma takk keneen ku ma paa bi mënti jox tamit duma ko takk li may soxla ci yéen leen dong la mooy soutien fraternel.

au pire des cas, je pense. xaw tu penses xaw tu ne penses pas. Ibnu nit ñi dañu am wàll ci yow say waajur am wàll ci yow société bi waxi noppi loolu la daal. Bakir Tu veux je nga bëgg ce wax a Eliafa Ce c'est pas le quartier qui me quitte mais c'est moi qui quitte le quartier Ibnu Thiam toppul société bi société bi moo may top. je suis clair. la yow wax ak yow perte temps la yow mii. ñu la moo la daal nekkal nit baax na allo waaw joojo waaw baax na maa ngi ñëw maa ngi dugg léegi suuf maa ngi ñëw dugg waaye dugg jëm fan yow xanaa ayoo ci awa foofu laa ay may jo jooju dafa xaw a kii yaram bi xaw a. cest à may ma jàmm muy dërdërlu nii booy def sa yére nga commencé dërdërlu defal yi nga war a def ci yoon moo gën. ñu faral jàmm. allo. Ah, ah yow de xam naa ne mën nga xaral yow ñëw naa ba tiim la ngay nelaw rek. mama maa ngi ñëw ni de ñi la doon jema tek ci axe wallaay nga xalé mo xamu ñu lu bari wa ci kanam gis nga yow boo naree top ki di nga sarxé sa temps toogal foofu ibnu boppam bu bari karaw bi. yow ni ngay gisé aduna bokku la keneen ni mi gisé yow sa gis-gis yow rek la ya ko mom bu ko ko kenn mais dama bëgg nga xamni société bi dafa am wal ci yow. imagine que nga bëggoon créer un événement wala nga xool lenn loo bëggoon def mais ci société bi ngay dellu aussi..! donc mënuloo wax lu ma neex ma def wala lu neex wax loolu tegoo fenn il faut nga trouver équilibre. tu me prives de ma liberté de penser c'est ça que tu veux.

nga jug dem waaye si loolee nekkoon na nga tey la ma ci lal bi nii xanaa ibnu Thiam rek ak ay théorème ibnu Thiam ne bi laaj ko ko bàyyi fas yéenewul takk benn yoon <laughs> man de ibdu saf na ma man ibnu hmm. man neex na ma lool ndax dafa am fulla hmm. moom papa njuga lu mu tek bala moo yegali mu teggi tek ne ya lol fulu ko jàppe lol di reewande hmm. dana am fulla ah loolu reewande la kon de yow yaru nga mom yaru nga ba melni ni ko rek yarwande kan man ah wa baax na jere dégg naa wax ji way ci ibnu ñu le nit ngeen ko jàppee man dof la ko ah ibnu hmm. dafa dof di dof buy lijjanti soxla bu amé xalé bu melni bambe daw ba fat ah muy am lumuy lumuy lumuy jema expliquer ba ci a bambi nu bambi mel mel. nan la bambi mel mel. ah. kon yow li nekk ci kër gi yépp yow yaa ngi gens xale bi yow. kon yow yow yow yaa koy fil di ko xool. yow bambi bi dafa ñëw suba ngoon guddeeg ba duma ko gis. <laughs> man xamna yeen goru góoru nam ngeen problème de. yow lan moy seen problème ak bambi yéen bam bi lan la leen won lu mu leen ñamal ah yéen seen gone neex na de. loolu ngay laaj ñi teem ko laaj xale yi wala sàddi yow man man yow yaay sama yow yaay sama amul bàyyi di man yow laa am di ah yow yaay xolu di ah nag na bu nag rek leen nag yow mën ngaa dem ba nekk maam ngay soog a nekk fii di affaire ay wax affaire fiiraa ngi yow. ñu tax ba duma fiir damaa bëgg ku bëgg fiir ah te bëggee lu maam nag lañ wax dañ koy doxal ba mu neex. bëggeel amul retraite ala accu amul bàyyi amul âge. le hmm. cœur a ses yow xam nga ne yi ngay wax ni tegul fen hmm. yaa ngi dégg man baam bi xoolee moo ko leen lan ko lan laay xoolee baam bi yow. ndax yow ñeme ngaa xool baam bi yow boo xoolee baam bi man maa la gën a saddi gën laa dee tàppet laa koy def def ko micro di ci waylu lu neex. Hmm. <laughs> <laughs> mana bayi ni dafa gudd yow ana ana sutura doo ndank sutura bu bëgg sutura da ngay may sa bop sutura yow da yang a xam sutura top bambi gudd bambi baam yow mom bambi di ko katchat yow waaw jeex retanal reetaanal bàyyi ñu ñu jall ci leneen doré sa safu maré eh bayi nga nga am sa fu maré yow tam na doré gili gili eh bayi nga mo orangnya nga ñak fayt nak yow eh, eh, yabar na mo na Paling malade. La bla la. Dom legi la safre. Mane, wata nga ga yayi fifi. Ha? Yayi fifi wata nga ngo. Ka ce ba bobu. Ko ku bandi la wayu la. Dem dal wona ko nako suba mai yawa na ñew sa kër. Waye nak faw ma napp ko de. Xam nga bandi la. Ni ku la napp Ha. Yo nak bukian ngai nak mu lah muiman. Nih man. gimana mbëggel gi am waaye billaay waat naa ci ne mais rama mais boo ko sóoroo mais rama long na large na ay rasaam gudd na te da nga war a fekk sa tudd turandoo bi nag. loolu nga gis. non ah, ah, nga gis bàyyi ma jënd galaas loolu war a am sax. kon bàyyi ma bàyyi mu seet ndax nag xam naa ni moom na nga koy gisee noonu ak sàqar yaaram boobu mel ni fu fu teer bi di jaar capable na coupable na mère boobu daf may matt rek mattataanoos du ma fekk dugub bi. soxla won nañu ngay wax <laughs> merci mon cœur ça m'a vraiment fait du bien waaw mais ba tey waxoo ma lu la maman doon doyee démb de Khalil be maman affaireu dom lañ don wax parce que daf ma ni dafa bëgg sët ba paré bëgg ma tek pression dafa dafa yëg ni non écoute gis nga problème dom loolu suñu problème la man ak yow yoonu kenn nekku si est-ce que yaa may dégg waxuma dara te duma ko wax kenn d'accord ouais. <coughs> merci mon cœur de m'avoir dit la vérité et de m'avoir dit euh, de me geler maman et tout tu t'es pas obligé vraiment mon amour écoute gis nga ci aduna bi li ci dess dootuma la neub dara lepp luma xam dina la ko wax lépp loo war a yëg di nga ko yëg ak lu mu mënti doon dinaa si waxtaan ak yow d'accord dootuñu amati benn nëpp. ok on est bon. <clears throat> merci mon cœur de m'avoir dit la vérité et de m'avoir dit li nga jëlee ci maman et tout j'étais pas obligée vraiment. j'apprécie je t'aime. waaw ma je t'aime yow. Hmm. <laughs> Ouais, je t'aime aussi. Hmm. fanaanoo ba am nga jàmm xam naa ni biis bi moom dina diis yow lool sa doom bu góor sa taaw war a dem bitim réew ak moment bi ngeen toll xam naa dina xaw a jafe si yow waaye faaw nga jéem a yàlla tuuti te dimbali sa doom bokk na nag si liy dimbali nit nga nëbb ko li lay metti mënul ñàkk sax xam naa nga jéem a daw tàggoo bi waaye bis boo ko defee rek di nga jum bu heure tàggoo jotee demal nga xool sa doom nga jàkkaarloo moom si bët nga tàggatoo ak nga xool ko reetaan mu yóbbaale say reetaan loolu bokk na si li koy dimbali day yàgg rek mais xam naa ne instant moom dina fàttali incha allah. baal nga lan moo tax mënu ma doon wax daal nitu sutura nga mais fenn rek nga wéré boy maanaam ah, bu jil bi kalaatee ya, da ma ko war a njëgal kon laajpel naru woon yéeg kaso almeria direct la doon jëm ah boy loolu laa xam moo tax waxuma la parce que xam naa su ma la ko waxee da nga nar a indi sa bopp ay problème pour rien du tout pas pour rien boy pour xadi plutôt na bëgg ba léegi de ah. c'est vrai que waxoon naa la que man ak moom jeex na tàkk mais gaa ba ma ko gisaatee démb mbëggeel bi doon nelaw ci man yëpp dafa yeewaat. mënuma xalaat lenn instant bi à part nu ma ko mën a jàppale pour mu def ay études supérieures am c'est vrai que ins bi dafa nekk ci phase defaruwaat te bëggul ma jàppale ko si dara man tamit mënuma woon toog bañ a def dara. waaye man li nga nekk di expliqué nii comprendre ma si dara la. maanaam xadi dama koy gëmloo ni que dafa am bourse comme ça du du fay dara. et puis ci côté inscription bi waxtaan naa seeg sama papa démb wax naa ko lépp tegal naa ko mu comprendre donc pour ça c'est ok. da nga nar a def li yëpp sans pour autant que xat yi xam effort yi nga daj donc moom dans sa tête dafa nar a jàpp ni état moom moo ko may bourse kon moom du mës a xam li nga ko defal booy. booy xadi bëgg naa ko mbëggeel ba nga xamante mën na nekk si jàmm rek na dab bànneexam defuma ko nag ngir bëgg a delluwaat ak mom de dama ko def juste parce que dama ko bëgg donc c'est différent ouais eh xalaat non yaa ngi toog naan booy bi mi ngi waxaat waxu dofam yii rek mais di nga comprendre bis boo bëggee dëggantaan si ngay xam li ma lay wax lépp. Ah, booy comprendre naa bu baax li nga nekk di ma wax nii et une seule chose à te dire loo xamante ni yéene naa la ko en tant que frère mooy tu mérites d'être heureux dund bànneex comme yow tamit booy mais bon ñu dem gàlle

koya redi koya koya shuli yaroba yaroba yaroba yaroba koya redi ko kularom ye man duma sa morom be sa tank bi mayma mayma may fomp li rek mu lo fexé ba fomp ko suba ba nga nga di ko benn benn bëgg umu umm fekk la fi rek ah, nan la di yak na loolu nga bëgg gis nga umu mi mu la téré delu na ma nu waaw bu nga liggéey ko nga bayiko yow ya la motax nga bañ ma la motax nga bëgg di ma traumatiser di yëngal sama xel mek yoy lan la kenn du bañ ma dul neex te yor nga fukki jikko ak juróom waaw man nga juu man nga jaa ku ñëw nga and ak mom waaw tas nga ndakaaru tas da tas fu ne da ngay réglé nak da ngay réglé rek ñu jikko mama fama bambi gitu. wayu tam bambi kula baye nga engager fabere bi yeb yaay do dara dina la sama waref rek lay def ah sha allah kontaan wax deug yalla bambi bax nga goré nga yiw nga nango nga liggé wax deug yalla xalé yi taluñu dara ñi ngi seen téléphone yi di sinap di audio di def lu leen neex te yow gor gor lu di liggé di def li la war tok fiñ la teg macha allah de moy nit bo ci nite mong malaayam mais faama bari nga histoire nag ma waxaat la ah baax na man daal fi ma tol nii sama kuddu jam ak salaam rek la ràcc bëgguma benn discussion yaag sa ñaan yàlla de yaag sa amin Ya ko wax baam ma chérie soo paree nga ñëw ma yónni la marché merci ci biir Thank you. seytaane bi bëgg a dee xale bii mën na dëxin mën na lu ne eh Marème chéri Fadountou Ibrahima ça va Marème da ngeen demoon sport nii xoolal man moom entraîné naa xale nag xaw ma lan la nekkoon di def ah dafa mën yàq der ñu ñaar ñëpp entraîné mais yow da nga reprendre say activité xaar lu may def marché neexul te toogaay bi metti na ma ne naa delluwaat ci table ci xol ba xam. lambatuwaat tu n'as pas pensé à formaliser li nga nek di def ni Ibrahima luy formaliser li lol <laughs> formaliser moy nga baña a ci jën kessé di entreprendre c'est-à-dire jën nga transformer ko def coton wala ay sardine ak yoy non lol moo lay gëna indi indil xaalis de. sa jabar ji bop bi baax na de eh kay tok li ñu waxtaan yow mi la soxla nak sa bop bi yee baax kaay macha allah kaay. maa ngi xoolal instant bii je sens pas la rose wala xet bi ñewul noonu ay ma dem sanguti ci mo moo gën su ma xéñ xeeñ neex na ma kay tok ni ma ngi ñew suma ma ñëwee ñu eggali ma ngi ñew <laughs> soo ma jegee ibrahima Ibrahima eh. yee Moussa moo nii di préparé pour dem Khady Thiam dëkkatu fi daaree laa kenn xamul fu mu yendu sama yaay mu ngi yendu si kër gi sax wante kenn du ko wéttali man fa lu tax àdduna bi di changer

Même si je suis sax je ma gis sawet ak man tamit don soxla maa ngi sawet tafa lan la lu xew loo koy dawe non dara xewul dama kii rek dama kii lan doo ma wax ma xam sama yaay daw ma mais c'est juste que limay bañ moy waxo wax bu nakari su bayul dima wax ay waxu dom lol pour lan hmm. eh leulum la wax man ni fa su munul am dom daf may takal ñaarel parce que dafa bëgg seut man je comprends pas sama yaay la lu mën xalaté lol eh nag yo loko tont ah mais la la koy tontu man munuma may sama bop lol la ko wax te nangu la dégg wax boobu. gisoo muy enchaîné di ma woo nii boobu ba léegi te man li ma ko wax saabu di dire dégg ko. xam nga sa yaay déggu la waaye man mooy ku may dégg man sa yaay mooy kii dégg Marème Thiam Babel mii te dana ma dégg bu baax ah. Marème. kulal rek yow kulal nga jàpp sa ñàmbur waxtaan ak sa jabar bu réeroog moom ndax sa yaay sa yaay la mënoo dal ci kawam te am na noo xam ne boo ko defee.

Caetano Sénégal, représentant officiel des marques automobiles Renault, Hyundai, Ford, Isuzu, Bike, Jetour et Mahindra. am na huile am na AO keur ni jay senak keur ni jay senak Amna qualité c'est garanti keur ni jay senak Ganima. ni ma ni jay senak teraanga ak Punch la fekk baax seetaan leen seen programme ak boisson Punch yi di teral gan ak di seetal xol yi ak Punch rek teraanga fii la fekk baax. Chez Umbilico, votre confort, notre satisfaction, votre bien-être, notre credo. Umbilico, Liberté 1, face Stadium Marius Ndiaye. 77 519 1804 ou le 77 762 37 47. Umbilico, the best. Pour que chaque trajet soit une victoire, rendez-vous dans les stations-service Orix, powered by Africa.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 Matidi.com MT Couture, Mam Tcherno Couture, des costumes africains sur mesure avec des finitions exceptionnelles. Eh, Retrouvez votre série Made by Moussé chaque lundi et jeudi sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Salut Choose 221, votre partenaire numéro 1 des chaussures. Livraison partout dans le monde. La Traiteur Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. excuse-moi T'inquiète, c'est juste que j'ai une excellente nouvelle en fait. Ah oui, c'est quoi Amga suis sa bourse pour et IDA. Mhm. Ida waaw. où? c'est l'une des meilleures écoles de droit au Sénégal. Eh, tu es l'une des meilleures élèves de ta promo aussi Tu mérites nga c'est si écoles, gars? Où de def de lijjanti bourse bi yow. sama papa. en fait moi activé qui ai ça ensemble. mais je pense que c'est pas intéressant l'essentiel que moi, j'aime cette bourse. pourtant je t'avais dit de. tu m'avais dit que tu voulais pas de mes aides financières. Les tu mérites de gagner cette bourse pour l'élève brillante que tu es J'avoue, je suis un peu brillante quand même. <laughs> Même ton modeste autour, donc simple. Inspire, dis-moi Comme ça, je suis année blanche. Comme ça, je vais de retard par rapport à ma promo. Ouais, c'est vrai que échapper une année blanche. Mais par contre, tu es grave en retard. Parce que l'école commence à un mois.

et devient l'une des meilleures avocates en droit des affaires que ce pays ait formé. Inch'Allah. suis هي المكرقة ولا Je المساعي إذا كنت ديك إلفان ma bëggee li ñu fi wax loolu lépp du wax ji ay damay xew xew week xewuma xew week man daal fifi mii su dugg nii jaaxal na ma ahaa la yow xale nga war leen a suturaal nga bëgg leen a weer waaye yow de. naa la dañuy waxtaan rek. ah あげなんで、うん、よく食べればせんとなねあれ、うん、何それやんせんとなばななで、うんうん、waaye nag dafa jot ma wax ak yow nag il faut ñu wax parce que sutura gi ngay wax xale yi suturaaluñu seen bopp dañ waxante dëgg xale yi bañ demee ba def seen bu ne weng ba mën indi nit ak i noppam te xale boobu choisir juddi seen diggante nak yalla moko ko dogal lolo waral na ñu war ko tuddu ci ak sunna Muhammad tewlu ba mu ngay wax tewlu ci yalla yalla ko njëkk wax ñu doom bu juddo ci njaaloo du doon waaw ah. ah. ah. waaye mi mii doon jabaru imaam tax na la nek imam nak e eh, nañ bayyi foofu nañ jëllu ci xew mi xew bëgg ñu waxtane ko mais rama amul solo lo gis waxtan la njabot gi suñu wax suñu njabot lañ xam nga njabootu léegi njabootu kinara la. Ah, waaye na bu nagam yaa xam lolou ma sama mi. wala ñoo dañuy jitu dañuy jitu rek ñu top seen ginnaw mhm. ba taxna na bëgg ñu ngénte ngenteli def ba nak ndax turondo yombul nak turondo na bëgge lolou yombul bu ñu ngenté ba paré ñu mayé leen suñ leen mayé moy di wax na def nañ li kilifa yi waxon ah bu ko defé fii fi si. Mur, sey si sey <laughs> si mo mënul né ah ah sey si mom comme kilifa ye ko waxon li de tax ma ne na say kilifa ye ko waxtane won wala paté ay kilifa ye waxuñu ko yow yaa ko wax ah ya wax sa bëgg-bëgg na bu ah sey si moom mu ne kilifa ye dañu ñu waaw mo imam mom xana moom kom jakk ja rek la am kàddu mom amul fi kàddu ah baro Bakir waxuma la kërëm waaye néegam sax am fa kàddu xam nga luma la bëgg xamal sama dom ji dañ koy mu mu doora sey si kenn du ko vuri faraj waaw bañ a wax dégg nga dem nabu ah kay dinaa dem waaye de koñ koy wax ak ku buruj ma rekk sa doom ji na buruj nak. <laughs> buruj gee ko yóbbee lii de sama doom ji dañuy jàmbaar nag kàppoo la noonu di waaw waaw waaw mi ne dama lay yow bu saf góor gi dan laa yiti woo woon de mbaa jàmm la jàmm la rek imnu jam mo bëggoon su fekke li nga ko may mën nga iya ko ci yokal tuti ndax neena une semaine mi ko wax munu ngoro bëggante si am ci soxna en boko ko may tuti mu xoolaat boppam bu baax papa ni nga def non la bu la ci dara Faqir Thiam en tant que taaw ci kër gi yow nga war ñoo taxawal di ma xeex. yow may ma jàmm nga ma ay taxawaay papa kii instant bi nga ko may sa dafa ëpp ci moom tey ji nga ko waroon a maye. maye kan la maye man. yow. ana nan la ñuy maye góor mi sëy yow règle à l'exception nga yow dañ lay maye buñ la mayol fii ngay maxe te duñ ko seetaan.

Nabulim lim la wax deug la bi ma ko xam mo bax ci ni jabet ak ni ragal suukar jënduma la sax man ñeneen ab ngàpp rek de dugg lu sayu yoon xalé yi fan lañ tollu xaarama xol leen ba fuñ doon voilà eh, ndeysaan non instant ne pleure pas ne pleure pas oh là là musa ndeysaan instant day dem France yow oh waaye nag instant moytul ma màggetu tubaab yi de ay fàtte naa sax yow da ngaa la cax ñoom borom tablette chocolat yi la wër ñu dël lañu borom dën yi def nii ñoom yooyu la ñuy wër. instant ma dénk la loolu ndaw nag. góor gi ma rek. yu ma soo demee na góor góorgóorlu. Mhm. na nga gëm sa bopp dëggal sa bopp bu leen may dara nag nga nangul leen nag seen aada bu leen jugé waaye na nga xam nag fii nga jógee bu ko fàtte mukk xam ne ñeeño piir nga dégg naa la Pape bari di ñaar yàlla moom la la suñu borom may muy am doom bu góor mu yem fi nga ko yemloo jàng ba tey mu war a dem bitim réew ma yaakaar ne danga war a wàcc tey tàggatoo ak moom ñaanal ko mais nga bëgg a toog wéet ak say xalaat ba kañ déedéet moom. Insa dul baale naka ngay ame yaakaaru ndimbalu sa borom mm-hmm. ah doom te sa yaay defu la dara ba nga koy baal waaye dama bëgg nga xam ne koo gis mu jugé tey jii su ëllëgee dañ ko jugé mm-hmm. te rangoon ji laa bëgg nga fomp ko fas jom ndax fa la nga jëm amoo fa ndey amoo fa baay. Mm-hmm. Allô Oui, euh, c'est moi, professeur Emoutia mais oui lol de leer du Cap au Caire m'a vie. au Bonheur. ok bon la famille je vous aime mais Je bouge. bougé ça, ça, je envoyé mon conseil conseiller, boo nga liraat ko. su faatee doo ko war a dégluwaat nag. nga envoyé waat ko ko. non jógeel fii on t'aime pas. juróo doom waaye yaay nga am nga xolu yaay man sama taw mi ngi nii di dem ma fi jógee dénk naa la sama caat bi oh, dénk naa la bu sa faa benn benn la demal ak dikkal loolu rafetul. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ok. yaay tegu naa la yaay. oh là là instant l'oiseau de sa mère qui vole tout le lointain mais c'est triste mais c'est la vie hein oh là là. Salam, salam. ça va na def. ça pare ngeen. foo ba heure bii muy pare ngeen. waaw ñu dem papa maa ngi yóbbu instant aéroport. e eh, noppil yow yéen du ngeen jàppale kii bagage yi ngeen lu ngeen ci jooyee nag. Eh, jël sa téléphone te nga jël sa téléphone bi wax nga ba yàqook sa bopp ndaw bi. wax sa morom eh. ko mu góone rek maa ngi nii. Bambi loo def fii non xanaa du ma ma doon topp. Ibnu man maa la fi woo. arrête de mentir sa baat ak baatu soxna bi ma doon waxal ute na. Ibnu Thiam kooku man maa ko fay pour mu woo la ma mën la attirer fii nii. da laa wax ni la man jën laa ba may attiré sa filet Bambi. Ibnu ku la woo xanaa bu la waxul jox la est-ce que doo ma déglu rek. dans une minute pas plus. Ibnu Thiam nga foog ni man bëgg naa marié wu ak yow xool nga sa bopp kaw ba suuf. mariage bi dara laa si bëggul lenn rek laa soxla mooy temps. une semaine yi paa paa bi maye bugguma ci dara lu ci Beaucoup bu ko weesoo mu bagage abal leen seen kër ok Quand dem bi d'aller dajale nit ñi di wax na nangu nga sëy ak man ah da nga doon Mana yang dah ham ne ndax Wah ada nga doon Mungkin waa Et là, ça montre que vraiment, tu m'as très bien. Et qu'est-ce qui me prouve que bataille ne du fait. Une minute là, la moyenne. Diane. mon mariage bi. Souba. mariage dans une semaine. Te de se pas Bah mariage. mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah. Ibn ça va. C'est y Je de bulu otak. Oh, oh, ça mal, eh. Huh, lain juga. Oh, juga jam. Oh, aladin juga. Juga. Oh, juga. Gorgi, nga yaakaar ni force Ibn jam takal ga jabar solution la man mi nga xamni ni jaar naa si mariage ya, arrangé Amna lu ma si jàng bu baax sa dama bëgg nga xamni sa ibnu du benn yow ana kañ ngay bàyyi fooye sa xel. si lan góor gi. Eh, sa sëy bi nga yaakaar ni arrangement la loolu weesu nañ ko yàgg na waaw te dëgg-dëgg nag ku gis sa doom yi gis insa ni mu yaroo nga xool maam Bousso ni mu bëggee doomu Adama nga xam ni sa sëy bi ak Awa Seex sëy bu yàlla barkeel la. góor gi dafa. déglu ma da foog ne liñ la tànnal jabar rek nga ne foog ne bëggoo ko cest à xanaa xamoo ni mbëggeel dafa bari façon te gis nga nag bi ci ëpp doole mooy bi nga xam ne dafa laal xaritoo doo toogoo ne magum jëmm nga te jabar nawle la nag dama bëgg nga xam ne sa jabar mooy awa seex Waouh.. dangaa mën a am taaw yum la jural ñu leen Tu mën nga ko Salam alaikum. Oui, chef, ça va? Ça va, monsieur? Ça va très bien. Ça va, bienvenue dans votre station Oryx. Merci beaucoup. Merci. Euh, super laa bëggoon plein. d'accord tout de suite. merci beaucoup. papa Xalem. Bousso laa la da ngaa xiif. Bousso yow nii rek doo changé. Ah Omar. waaw. Euh, da ngay ak ñoom ci oasis bi. nga wutalee luñ lekk. waaw ah. ñaaw na baax na. wàcc leen ñu def. papa Xalem doo <laughs> ñoo far. C'est bon Ça va 40 000 francs. Ok. Euh, hein. oui. am ngeen service d'entretien. si si am nañu essence auto personnel très compétent. Mon équipe nii mon équipe. ok d'accord merci beaucoup ok merci beaucoup à la prochaine. allez merci. orphelinat te yëgu ma ko waral yow lii la da kaa mën a lekk. déedéet dama koy nga jël loo mën a lekk. sa biir bi baaxul. une deux trois douze ba oto papa xalil amul toilette. léegi am na pot def naa ko. tët tët ko muy avion avion ru lii di solo ay solo français.

te tey jii dama waroon bénéficier wu éducation mère femme moo tax ma def lu conduire na nga noonu. bëgg la comprendre mais vraiment li nga wax xaw ma ci dara mën expliquer waat. tey jii yaa ngi des ne da ngay dem France te pourtant da ngaa waroon toog Sénégal c'est parce que dem France sa destin là, moo tax nga yëg dans le passé ni sa yaay def. nekkul nag sa yaay li mu def moo tax nga dem ngay dem France de déedéet plutôt da nga waroon dem France moo tax nga yëg li sa yaay def est-ce que yaa comprendre. donc si je comprends bien l'homme n'est pas maître de son destin. ay pion kase lañ dans un vaste échiquier nag architecte bu mag bi yàlla mooy xool ay pion nu mu ko neexee ak moment bu mu ko bëggee loolu nag su la dalee danga koy booleeg nangu.

loolu moom dina ci baax waa lan lan lan ngay triste waa léegi nit moom su amul lu mu bëgg du triste ah, ñàkkoo jëkkër de ibnu caam moo ñàkk jabar loolu ngay wax ndànk ibnu ak kanamam googu demee ni naqar man sa doom rek a may tere nelaw yaay bëggoon woy ci kàddu kilifa te sëy rek te yàlla tax moom mu dugaloon ci lii yëpp te gis nga tey li ma ci fekk yàlla dencal na la ku baax koo xam ne bis bu ëram jotee dina ñëw ci yow te soo demee bay xàddi nga xool ci lay Layla Thiam gis nga ko li mu traversé yépp te mi ngi nii di reprendre goût à la hmm? am na koy sole salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va Marème. Marème lu xew ba jàmm. Eh? waaw ndax mu ngi ci man waaye nekkul ci yow oh. xam nga tax nekkul ci yow oh. xal caam ak Fatou Bintu mi nga bëgg a jël xañ leen ci seen sëy bi ma ci yow. lu ci ya, li ngay wax oh? sa jabaru papa la. miis naa lay ci moom moo tax ma ñëw bi ñu ko miisee ci man pour mi yi nga bëgg a jël ni leen kur kàkku dañoo war a am doom ci seen sëy bi fan nga ko teg yow yaay may wala yàllaa may doo bàyyi xale yu sëy bu leen yàlla may ñu jël lu leen yàlla may ñu jël ñu xam ne am nañ ko yow loo bëgg bëgg bëgg bëgg sët ñoom ñaar ñi sëy ñoo la ko gën a bëgg eh dama bëgg nga may ma duma sa moroom duma ma sa eh, mappandoo eh. ba nga am fit gu toll ni ñëw ba sama kër nan danga may àq si di ma wax sama digganteeg sama doom sa yoon nekku ci est-ce que yaa may dégg bu baax soo amee sa looy lijjanti wala sa saytaane gooy lijjanti na nga ko jàll fële boo ma mënee def kilifa nga des ko boo ko mënul nag nga téye sa bopp ci man ah yow daal yaa war a dugg ci mbànd soow bi dama la ci bi ba nga set comme weñ sànni la fee sama digënté ak sama doom mënu ci dara xajoo ci ta xajalu lu mëna ci dama bëgg nga kecc ci genn ci bam set gis nga li nga ak man ak li nga wax ni inshallah allah sang bi dina ko yëg aw kay ak amay neex ragaluma lool ndax man ci dëgg lay dox ci dëgg lay dox ragaluma sama papa lén rek la bëgg bis bu koy yëg bu wañ ci lima ya wax dara te bu ci yokku dara yow li nga def wax ko ko li nga ko waxe ko nonu benn affaire laa lay xamal nag ñoom ñaar da leen di bàyyi ñu sëy nekk ci jàmm mayoo leen jàmm man ak yow xamante na nag te miinante nañu ci ëtt baabe bi. waaye doo tontu kii doo ko delloo palaasam. eh. xamoo sa bopp yow dama ne nga liggéeyante sa sëy te nga abal ma sama kër ci biti. ana kër. abal ma neel sama appartement. may ma ci biti. neel sama appartement. mbaa xam nga dee leen may jàmm. sinon yow dina metti ci yow boo leen mayul jàmm dina metti ci yow. ni ci biti may ma te nga lijjanti ci sa sëy boobu xam nga lu doy. ma dem ci moom musique. انسى الحمد لله رب العالمين يا نسي جام اه ما شاء الله اها واي بول موسى فاتي لي لا يبي اوكي جام وا بان بسوا نديكو ان شاء الله الحمد لله اسلام نانا يا جنسي ديام الحمد لله الحمد لله كي واي اوسخ صديق واو ما سما بعد tiital nga mu waay ah, ah tëddal boo yeewoo sa xel dina ñëwaat ñu waxtaan Written a call for you before me the la lu ma foogul woon ci yow nga ma tek man du lii laa la ji Dakar bi fees ci sama xol def lu ma lu ma rëcc nii booy du lii du lii du lii du lii laa la ji man musuma bon ma la foogul 횃불을 아까뿐 만여로운 Que l'amour terme du sillon حمدي ومادام خامرون دفن تجاركم تي وقتو قم تيور سبب لان بين قورتو كوياك ما يسجنا بورو سبب عنقكو سألك يورك يا كويلي جاي هلم بس قيسة ميان دانو سيتا خاجي سالبيان هلم بس قيسة ميان نجل جابو دم رجولات